daldi leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé kook enquête yëglekaay bi desuwaat ci rapport cour des comptes yi nga xamante ni ni ki démb leeral na ci dossier na Prodac yi nga xamante ne nii bëri lu ci lënd mun rapport bi ni mel nag daat koy leeral verdict de la cour la ko yëglekaay bi tuddee tey xam le ne cour des comptes bu jënaa feuilleté of nag doxalinu Mame Mbaye lépp la yëglekaay bi desuwaat yëglekaay bi na rapport yoo xamante ne ni jaarul yoon yoon am sax ñoo xamante ni dañuy yor ay ñaari responsabilité di liggéey lépp yéenekaay bi des deesuwaat na ci Les Échos yéenekaay deesuwaat ci scandale bi nga xam ne mu nga ca Prodac yéenekaay bi ne boo bëggee dégg dëgg rek ci rapport Cour des comptes bi surtout diggante 2018 ak joxoñ na ci mauvaise gestion bu Prodac xalal goo xamante ni toll na ci 2,7 milliards de francs CFA la ñu fay loka Afrique la ca lëndëm lépp yéenekaay bi di xam le ne Cour des comptes mujjee na koo leeral ay indemnité xam ne jox nañ koy agent te jaarul yoon ba seen contrat bi ñu séq ak lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci yéenekaay bi ne en tout ay révélation yu rëy laa la wax moom la Cour des comptes def ci rapport yi ay manœuvre yu mënta jeex am alal goo xamante ne nii laa la wax kenn mënu koo teg bët fu ci mel ne nag anaat DG ba Mamadou Djigo da daan utiliser ay crédit d'investissement yoo xam ne nee na daf ci doon fay ay charge de fonctionnement waaye la ci lëndëm Cour des comptes leeral na ko Le Témoin yéenekaay na ci rapport bi ni mel joxoñ dinaa wax ci publication rapport cour des comptes bi lépp nag ñeel affaire Prodac waaye ñoom kilifa yi boo moytul dinañ dem leeral ji am na beneen trafic de kits boo xam te ni wàllum jalis la concerné of nag ci boppam laa la wax rapport 2023 bi jàpp na ne luubal da caa am ndaxte am na ay médecins yoo xam ne dañ doon transformé nekk ay courtier wala ay délégués médicaux scandale bi ni mel nag lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci bés bi la jour def taxaw seetlu moom fa ca mel ne Prodac Mame Mbaye Niang moom ci boppam laa la wax ndekete mu ngi doon sooxaale contrat wu Green 2000 te Pape Malick tamit tudd nañ ko ca dossier ba cas exceptionnel la ci biir Cour des comptes Dakar dem dikk tamit scandale ba ca am ñu cay tuumaal maître Moussa Diop yéenekaay bi deesuwaat na ci tuuma yi ñu tegoon ci ndoddam la ca ëpp nag teggi na ko Amadou Ba ak problème yi amoon ci wàllu gestion moo xam finance ak budget yéenekaay bi ci wàllum surfacturation ay kit si jalis yoo xamante ne nii dañu ca lekk ci xaalis de kenn xamul lu mu toll am ci ay kilifa yoo xamante ni dañ doon soppaliku nekk ay délégué médicaux ñenn ñi nekk ay courtier lépp ngir mën a lekk ci xaalisu kit si yéenekaay bi yemu ca ndaxte ni waat na tamit ci démarche bi nga xam ne of nag mujjee na cee defi révélation yu rëy ne am na ñoo xamante ne ni kenn gisu leen ci administration bi physiquement existuñ te teewul dañu doon bénéficié wu ci xaalis bi aw daaj bi di Aliou Sow digganteem ak maître Moussa Diop yéenekaay bi deesuwaat na ci ne dañ leen épingle épinglé cour des comptes moom la mujjee épinglé kenn ku ci nekk nag mu ngay layal boppam la libération yéen i kaay ne scandale sur scandale révélation yu rëy laa la wax la cour des comptes def nag ci rapport am bi alal gu takku goo xamante ni ñu ngi koy tudd kenn mënu koo teg bët yéen bi di xam xamle ne am na ay indemnité yoo xamante ni daan nañ ko joxe montant bi tolloon ci 224 milliards ñu versé ko ci jamono joo xam ne agent de l'état yi ñu ko doon versé ci ñoom ak autorité ya nañu ko doxalee jaarul yoon diggante 2015 jàpp 2018 am na tamit ay agent yoo xamante ni bénéficié woon nañu ay logement administratif ak ay indemnité te nañu ko joxee tamit jaarul yoon yeneen i agent yoo xam ne double salaire lañ doon am te ministère de la santé lépp yéeni kaay bi dellusiwaat na ci mais rapport mel nag buñ ko doon topp dinañ tuddaale tamit fraude bi nga xamante ni toll na ci 19 milliards nekk ca Mako exploration compagnie waroon na fay lu toll ci 100 millions de francs CFA dugal dossier bi scandalu Afrique Gold tamit yéeni kaay bi dellusiwaat na ci ca Sabadola Gold xaalis bañ fa doon dugal te kenn du ko gis yéeni bi tamit dellusiwaat na ci naka noonu tamit Dangote ak Sokosim flagrant délit ya fa am yéenikaay bi ñëw na ci ca na yaatoo en tout cas dem dikk moom kaa moom dafa exceptionnel maître Moussa Diop ci boppam laa la wax la ñu épinglé alal gu takk goo xamante ne nii mu ngi toll ci ay millions et millions waaye moom lépp nag leeral na ko ci biir yéenikaay bi jam ñaajo léeg sit itam wala détournement ba ëppee de ndax ñoo ngi fay tudd coowal suuf lu toll ci 268 913 mètres carrés Nova Brick tamit waxi noppi seen ni kenn mënu koo tëg bët te nee nañ jox nañ leen suuf ci Prodac alal gi ñu doon fay te kenn mënu koo teg bët toll ci 13 milliards 800 millions ba jamono ji laa la wax kenn mënu koo tracé ndax amul relevé te kenn mënu laa wax xaalis ba fam jaar lépp tam yéenekaay bi deesuwaat na ci ci Médina maire ba nekk moo di Bamba Fall denrée alimentaire yëm daan jënd xamuñu ba léegi ñan la daan jox ndax amul benn trace yéenekaay bi deesuwaat na ci de Vox Populi moom deesuwaat ci voyage bi nga xam ne le président de la République doon def ci diwaanu Guinée taf taf mu deesuwaat ci Sénégal gii waay ba mu ñëwee direct la def ci diwaanu Thiès visite surprise boo xamante ni ni la mu doon lijjanti mooy coowal suuf la mu fay dégg ca mbuurkaat paacoo goo xamante ni ay autorité laa la wax ci nguuru Macky Sall ñoo doon paacoo suuf sa ñi am ay 3 hectares ñi fanweer jàpp juróom fukki hectares lépp moom président de la république am na ci ay preuves yu palpable yu ñu teg ci kanamam moo tax moom président Bassirou Diomaye Faye jàpp na li ni mel nag dañ koy dakkal mayeetul kenn muy jaay wala muy jënd suuf wala ñuy tabax nañu toog suspendre lépp ba mu lijjanti li ni mel ba noppi ndax mënul mi ñu ñu suuf ndax rek dangaa jege ci état moom président de la république di xam la ci biir yéenekaay bi ne suuf sa la muy bëri ci duwaanu Thiès maanaam téeméeri parcelle ak ñaar fukk dong nag la waa Thiès desee fi toll nii seen suuf si yéenekaay bi dañu xamal ne ci duwaanu Kër Moussa nag seen suuf sa jeex na de fi toll nii quinze kese la desee ci population bu toll noonu ba tey yéenekaay bi di xam le ne moom président de la république nag détermination xam ne seetlu na ne ci jamonoy Macky Sall paccoo dëgg nag moo am ci suuf si du ndakaaru njaay rek bëri na ci biir Sénégal ay dëkk yoo xamante ni ñàkk nañ seen suuf ñu koy jox ay borom doole ba tey yéenekaay bi desuwaat ci yenn ci ay nomination yu am ca biir palais ba niki démb nekku ci mel ne Ousseynou lii dugal nañ ko léegi ca ministère porte-parole du gouvernement ngir mu gën koo mën jàppale yéenekaay bi desuwaat tamit ci rapport Cour des comptes yi nga xamante ne ni mujjee naa fësal délinquant yi gën a mag laa la wax ci Sénégal rawatina ci jamonoy 2021 2022 jàpp 2023 yéenekaay bi ne en tout cas ca ministère de la santé scandale yu rëy a fa am de ay virement yoo xamante ni dépassé na sax fraude solo na ci lu ëpp 240 yoo xam ne nee nañu ay médicament anti tuberculose lañ ko jëndee woon waaye amul trace ca Prodac tamit la même chose bambulaa bu kenn mënul imaginer luubal laa la wax moom lañ fa fekk diggante jàpp détournement tamit am na ca ministère de l'agriculture dépense bu ñu mënta maîtriser te kenn autorisé ko tamit Dakar Dem Dikk ca mairie bu Saint-Louis ca direction des eaux forêts cour des comptes nag mujjee feeñal musiba ba bokkumba gi nga xamante ni am na ca Dakar Dem Dikk détournement ci alal goo xamante ni kenn xamul lu mu toll président conseil d'administration ba seet na lu tolloog 530 millions de francs CFA luubal nañ ko laa wax ci service ba yéenekaay bi di xam le ne directeur général ba da joxe ay prime exceptionnelle lu toll ci millions de francs CFA gannaaw ba mu fayee créance ci ba moom itamit laal na lu tolloog 10 millions directeur financier ba ak comptable ba ñoom kenn ku ci nekk mu doon recevoir lu toll ci millions de francs CFA lépp nag ñeel réparation seen oto ya scandale bi yemul foofu ndaxte bu ñu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi maître Moussa Diop moom lu leer la leen wax amul benn luubal boo xam ne def naa ko ba may yor Dakar dem dikk setal na derem nag ba mu set wecci jàpp na la nag dañoo bëgg a yàq deram waaye ñañu yàq seen der dëgg nag ñoo nga ca Prodac ci ay marché te muy ci turu Ibrahima Sissoko ndax kenn ku nekk ci ñoom yéenekaay bi xamal nañu ne dañ doon bénéficié wu lu toll ci 48 millions de francs CFA sans ñu compter ko ci seen salaire ci wàllu indemnité rek yéenekaay bi xamal nañu ne budget bu Prodac laa la wax tolloon na ci millions 250 lépp ñeeloon ancien ministre de la jeunesse Pape Malick te direction des eaux et tamit yéenekaay bi xamal nañu ne am na scandale de paacoo goo xamante doy waar am na ñu fa bénéficié wu sax ay permis yoo xamante ne nii daraa ci jaarul yoon lépp yéenekaay bi deesuwaat na ci ba ci Mansour Faye mi nga xamante ni épingle nañ ko moom maire bu Saint-Louis yéenekaay bi deesuwaat na ci ne lu jege laa la wax fanweer rek benn ay ordre de paiement rapport Cour des comptes bi signalé na ko te nag benn justification boo xam ne tegoon nañ ko ci table bi ba tey yéenekaay bi dañu xamal ne lu toll ñeent fukki dossier na leen ba noppi infraction yi foo ko natt ci chantier yi nga xamante ni mu ngi ci diwaanu Mbourkat te président Bassirou Diomaye Faye niki démb mu demoon fa visite gannaaw ba mu jugee ko ci diwaanu Guinée direct la fa def yéenekaay bi di xamle ne naqar dong nag lañ fay seetlu ndaxte suuf sa lépp fi mu toll nii jox nañ koy autorité yoo xam ne dañoo jege woon lool nguur gi fi nekkoon président Bassirou Diomaye Faye nag niki démb dem na def constat la mu fa gis nag weesuwul am na ci ñu jege woon état bi ñoom ñoo mujjee paacoo suuf sa am na am lu tolloog laa la wax deux cent hectares ci suufu Mbourkat ya moom li mu mënta comprendre moom président Bassirou Diomaye Faye mooy benn nit ñu jox tolloog ñeen fukki parcelle moo tax moom président de la république jël na décision ngir ñu càmbar li ni mel yépp ba noppi nag soo ko jox suuf si ña ko moom kenn ku ci nekk nag mën ngaa indi say dossier daal di naka nga def ba daal moom suuf si Walf Quotidien moom di ñu jox xibaar bu naqari boo xamante ne dafa jékki-jékki rek daal tàkk jëppët yéenekaay bi na lañ fa pett rek toll gum ci millions de francs CFA kañ la Walf TV fas yéene tàkkaat bakkanam ni ki démb teewul tam yéenekaay bi dellusiwaat na ci rapportu ak yu Cour des comptes scandale yi nga xamante ni am na ca Dakar dem dikk ca Prodac ba ci 148 millions yi nga xamante ni ñu ngi koy tudd ci PCA bu Azer lépp yéenekaay bi dellusiwaat na ci lii quotidien moom ñëw ci Dora Baldé juróom-ñaari weer yi nga xamante ni moom la def ca LONASE lu mu dee dee liggéey na fa ba am bénéfice bu toll ci 12 milliards de francs CFA ndax danañ ko reconduire nag ca poste bi ne mel looloo jaralaajte am na ci yoo xam ne day ànd ak Macky Sall laa la wax di gañe ay marché waaye boo moytul ñoom ñëpp duñu dox leeti jërikaay bi di leen lim ne ku ci mel na Doro Gueye Ndom Ba Nazir Samba Dame Diané ba ci Abdoulaye Sylla ñoom ñi ñëpp laa la wax dootuñu neex leeti ci nguur gi waaye yërikaay bi xamal nañu ne ñu perte dëgg weesuwul autorité yi nga xamante ne ñu ngi ci diwaanu Mbuur jëloon suuf si moomale ko seen bopp jamono ji dañu ngi toog ci nen ndaxte dikk gi fa président de la république dikk defal leen surprise ngir enquête nag si ñu doon cëqat cëqatee nar a teg nag lépp ci yoon mu toll nii laa la wax autorité mbuur ya ku ci laa la wax xelam xelam dalatul <laughs> ci mëkk suufu askan bi daal di nga koy àbbiwaat moom mbokki konti leen di abonné ka bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar yéen ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah